père ziar. li wax dara du ci dëgg laaj yaa seytaane yow buuse ba duma ko daan ko li ma ko daan neex li ma daan naqari nga war a wax ci loolu waxoo ci loolu waaw siyaar naa leen yéen di leen bëggee tey suma papa moo xewle Seexna Mbay xam nga moom mooy jëkkëru Alima Ndione Alima Ndione am fu ma féete Seexna Mbay Alaaji Mbay waaw mambay masiri masiri mambay ñëw bokk benn maam waaw xam nga ni kon lu dagg lu ne morom ma lay fekki liggéey li naan lu butéel ba def la saañ bay xeeñ kon ñëw nañ fu ñu war a ñëw di ñaanal xale bi yàlla na ko yàlla may fan wu gudd mu bi am nday ak bàyyi jëriñ ay mbokkam tey nekk bés bu ki nga xamante ni moo di Alima Ndione yan témoignage nga ñu a jox ci moom waaw Alima Ndione moom xam nga Sénégal ñi ko mën a témoigner bari na mm-hmm. parce que média dafa garaaw mm-hmm. waaw nit ñi bu fekkee dañ lay dégg rek mën laa jugé nit ku baax nga alma ñoon da ngay toog stressé wu mu wax nga kontaan mhm. alma ñoon da ngay toog am ci yoon nekk mu wax nga jooy sa mhm. xol neex mhm. liñ koy témoin rek mooy yàlla na ko yàlla may wér may ko gudd fan wéral baat bi xam nga ba mu mën a eggali carrière am yëpp ci jàmm waaw ndax moom waaw borom këram sama papa la mooy li la wax Cheikh na mbay sama papa la ndax sama papa bi ma jur papa mbay ak moom ñoo seen ñaari papa boo ko nday bàyyi kon kooku sama baay la mhm. mhm. ma ñëw fekk fi samay mbokku rek a fi nekk mhm. waaw kee rakam la kee ne ci kaw moto bi Mamadou Mbaye waaw ñii ay rakam lañ fii ay mbayeen rek a fi nekk ay Alaaji Mbaye Matar Mbaye Paate Mbaye Cheikh Mbaye Mamadou Ibrahima mbay waa mbayeen ñoo ne fii comprendre nga kon waaw noonu la demee ñu koy ñaanal moom tamit mu nekk koo xamante ni soutien de famille fi mu teg tànkam baax na fekk naa fi sama benn pap boo xamante ni sax dix ans ma ak moom gisante wuñu Matar Mbaye Italie la nekkoon mook sama papa bokk benn papa kon xam nga dafa baax ci famille xam nga boo jekki dara xew ñu gisante ñun ñëpp waa mbaye waale ba muy débuté dégg nga wax waa mbayeen waa sambeen waa mbubeen <laughs> waaw tey Ils <laughs> yombul rawatina artiste euh, tey lu ci bari dañ leen di ci Mbaye euh, rek na te ki muy dafa populaire rek nit ñi xamuñu ko mais artiste lay sëyal comme mom comprendre nga parce que géwél pire lay sëyal wa mom mu ñew xam nga sey mom yalla mo koy tuddu ci aras xam nga ñu dajé ñom ñaar tamit bëggante alima tamit ñu ñun ñëpp ha ah. bëgg ñun ñëpp ñun dégg nga sax limay wax ci télé bi dara alima ñon mbay loolu ñëpp dégg nañ ko waaw naan waa gale mambay jojo fëri mhm. waaw euh, mambay masiri masiri mambay ñoo bokk ben mam mhm. sama papa Matar Mbaye a ngi né di dem sama papa Pam Mbaye a ngi di dem kon waa Mbaye na fi daje waaw ñun lii lañ bëgg yàlla na jàmm yàgg waaw kon Aly Mandione Ndione fi mu teg tànkam conseil bi méttiwul Mbaye ni ceeb lañ bëgg bu dee bu weex kaani ko bu dee bu xonk alima ngir yàlla na ñeex mi bari alima bu dee suppu kànja la diw tiir ba na tëmb ngir yàlla ak yonent bi bu dee maafe la Aly bu dee maafe la Aly Mandione bu dee maafe la na dégg ci démb dañ ko takkal mu jur xaw ndax seetaan nga vidéo bi mu mu yor peelam mm. ah toj kër gi yëpp ñu ci bari nag ñu ngi joxañ baaraamu tuuma góor ñi naan dañoo bëgg ay affaire takk ak yooyu lii baax ci ñoom mm. waaw seeko loolu tamit xam dañ cee war wax ndax gars yi ñoo war a bàyyi surprise <laughs> kenn du surpriser bu fekkee da nga nekk ci projet de mariage fekk tu as une femme avant euh, tu vas parler avec le awa explique lui en attendant mm. mais gars dañ naan damay ñëw rek tegal ko vivement comprendre na bu fekkee am na benn waa benn mbëggeel bu amoon ci yow mën na def ay sax ba ci yàgg soxna soot doon toj foofu démb mm-hmm. boo ko laajee tey danaa est-ce que man la woon comprendre mm-hmm. nga parce que nit xam nga mooy loolu quoi escalier boo buggee yëg ci kaw étage bi doo ñëw rek tëb mm-hmm. da ngay dem marché par ndànk-ndànk karaase madame juri madame euh, man de sama nijaay Ablaye Meng doomam Jine Saalum su kay Jóob ah, ah, ah moo koy waaj a may de ah waaye man nopp ma ko nopp ma ko. ma ne la dugg ci dugg ci. non de sëb bi. combat ki nga xamante ne Serigne Bamba moo di Gris ak ak ak Balla mu nekk làmb ju day waar noonu noo ko jàngatee boobu. waaw kontaan kontaan parce que loolu day dundal làmb. Balla Gaye c'est un grand champion.

moo mel ni moom moo mag GRIBORO. parce que Bala Gaye expérience la daanee Gris Bordeaux Balla Gaye moo ne bëre topp ko mu arrière ba ci saaku yi taxaw essient yi dégg nga gëdd ko bëgg a accélérer foofu bëre bi Gris Bordeaux pertour repère mbër mu mën a xeex la mbër mu mën a la le 5 février mu xam ni non bokkul man ki ma yor c'est un grand produit qui a euh, tracé tous les lutteurs les plus dangereux du monde de la lutte au Sénégal Afrique de l'Ouest kooku mooy Ama Baldé moo daan Malick Niang daan Tapha daan ñëpp ñi mu war a daan comprendre nga ñi gën a wex la daan Malick Niang bi ma koy jël di ko Ama di jël di ko daan kenn daanu ko kenn ñemewu koo bëri moom Tapha Tine dama ko dóor gauche droite appel ko jël tànk bi ba léegi tànk bi day metti comprendre nga kon ki ma jël tollootul ci làmb fuñ koy mooy tolloo adversaire làmb ji xeex Balla Boy bu waa Pikine yëpp di pare la combat bu waa Pikine yëpp di pare la te buñ ci eggee dinañ xam bëgg nañ combat bi. Mm. suñu combat la. mais mais fan nga yaakaar ndam li fa fa lay feeñ. fan la ya boy ñaa xalé la don doon tëkk Balla mën na limi man nak ba nopi comprendre ma. mané boy booy xalé xale la. wa waaw Balla tamit limi man mën macha allah mën nako mais boy ñaa tamit xalé la. non ku ci nekk da nga am ñaari avantage ci lamb ji. Balla gay boy ñaa ku ci nekk da nga ci am ñaari avantage booy ñaa dafa graw torop ci mbeur mu koy ray si. il est très fort ci bokoy koy pour bëgg ko fi jëlé da ci ay moko ma sel si yaa ngi dégg Balla Gaye tamit euh, day bëre bëre boo xamante ni boo taxawee di ko xaar bu egsee ci yow doo bëre te ni faalewul xeexkat bu réglementaire Balla Gaye booy xeex réglement booy bëre moom da ngay am problème est-ce que yaa ngi dégg booy ñaar dafa am légitime défense comprendre nga kon ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga ci atu boo mënee man su ma doon booy ñaar ci làmb jooju su ma ñëwee damay taxaw li yi di wax taxaw liir bi combat bi bëri ko ni ma ko war a bëree maanaam ni mu doon bëree du ci changé dara loolu la war a bëri waat ak Balla Gaye même réaction même attaque même recul même riposte même coup même réaction même argument. yow foo jànge école ngeen. mama. classe. Come Bye, Dakar Instant. Instant à l'instant. passé le futur n'est pas encore venu donc vivons c'est sur Dakar Instant.